maa ngi sant yàlla baax di julli si yonent bi sant sama ñaari waajur sant sama sëriñ sëriñ Bassirou Bara ñaan yàlla yàlla na yàlla yokk leeram taaf ci barkeem ñaan sëriñ mu yàgg fi lool jawatu maam Cheikh Rafal mu yàgg fi lool Kunta Jaasaan Baay Ñas Laayeen Xaadir jawatu Cheikh Saad bi yëpp bàyyi ma kenn ma limee naa ñaanal sama papa yàlla na ko yàlla yërëm te xaaral ko àjjana yi àdduna bi mm-hmm. yaakaar naa ne bi sa papa génne ak àddina ak tey tey mooy ñetteelu fan bi ñu koy ñaanal fii sa kër golf. Mm-hmm. Balla keroog bi nga toogee dégg ñu ne góor gi génne na àddina ban yëg-yëg la Balla njëkk am. waaw sant yàlla sant yàlla parce que àdduna moom dund am na dee am na. Mm-hmm. ndax euh, yàlla ba mu dogalee mu génn génnaat nu mu ci clinique bi ñu ngi waxtaan waaw mu ne ma damay génn dama bëgg a génn hôpital ma na ko yow mais bàyyi ba nga mu ne baax na mais damay génn bàyyi ma génn rek ma toog sama kër moo ma gënoon. mu waaw mu ne day génn clinique bi loolu ban bés la euh, wax. loolu. loolu a waaw samedi vendredi vendredi la ma ko wax mhm. man kon baax na ma yëkkati xaalis bi day jo jox mu dem mhm. fayal boppam daal di génn man ne bu ma xëyee suba naa ko seeti toog ci jëm ba ñu ne affaire bi da ko daane laaj ma waxtaan ak mag bi jigéen ñaan ami toog tuuti rek après ñu ne dem gu mujj mbooloo mi ko topp Sénégal yëpp delloo ko njukkal rawatina sa mbokk mbër yi loolu Balla ban yëg-yëg nga ci am keroog. waaw yi armel yi sant di leen gërëm. korkat bi Gris Bordeaux ñëw na fi. dëgg yàlla ñaari yoon. ñu yëgee affaire bi rek dafa ñëw ci guddi gi. fekk na mu tax xaar xaar suba ñëw fi. Mm-hmm. ndax mooy sànneeri. Mm-hmm. donc maa ngi koy sant. maa ngi sant mu seet gis naa ko. dëgg yàlla. Mm-hmm. taxawu seen bàyyi ba mu topp seen loxo. boo ñëw gis naa ko. ànd koog mbokk yi ci ndigalu kilifa yi ànd ko fii golf dugal ko ci marché bi xëy taxawu ko tuddee ko yóbbu ko yokk ñi dañoo voyagé ñi dañoo nekk ci yite bombardier kon na dàll ñëw ba ci biir kër gi loolu nekk na lu rëy amoon ñu toog mais bu moom pour ñëw xelu làmb dafa am diggante ñu ko mbër yi nga xamante ni ñoo nañu muy la dëggeer wala say de muy guy muy ñëpp muy ñëpp mbër yi am na ñoom ñoo nañu sax te gisuma leen donc maa ngi jéggalu ñi nga xam ne gisuma leen bu ko jëlee mbër bu ndaw bu mbër bu mag ancien couloir yi waaye mm-hmm. ñëpp. ñëpp ñëpp ñëpp. ñëpp naan ko sëriñ bi ñu naan naa leen mm-hmm. gis naa seen taxawaay. mu mel ni jàmbaar muy sëriñ Abdou Aziz mm-hmm. Baye Ndiaye ñoom ñëpp. yaayam mën ko jóg. laa ko sëriñ Bakar di génn àdduna tànn ko mag jëm. bàyyi ñu benn yoon ba bëre ñu ngi bàyyi si ñu ngi kon maa ngi gërëm Sénégal gërëm uh, Mbaye Diop ñoo fi sama sànneeri donc maa ngi koy sant maa ngi sant seen xam-xam. taxawu seen bàyyi ba mu topp seen loxo. ñu jëlee seen bàyyi lu def ko ànd ko mbokk yi. ci dëgëru kilifa yi ànd ko fii golf dugal ko ci marché bi xëy taxawu ko tuddee ko yóbbu ko yokk ñi dañoo voyagé ñi dañoo nekk ci yite bombardier kon na dàll ñëw ba ci biir kër gi loolu nekk na lu rëy nga mag ñi toog mais dafa moom pour ñëw xelul làmb du xelul dara diggante ji war a def ak waajur mooy sant ñu ko di jaale mbëri yi nga xamante ni ñëpp ñoo nañu muy la de guerre Aliou Seyde muy guy ñoom ñëpp muy ñëpp mbëri koy am na ñoom ñoo nañu sax te gisuma leen donc maa ngi jéggalu ñi nga xam ne gisuma leen ko jëlee mbër bu ndaw bu mbër bu mag ancien couloir yi waaye ñëpp. Mm. ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp naan ko sëriñ bi sant naa leen gërëm naa leen. ak gis naa seen taxawaay. mu mel ni jàmbaar muy sëriñ Abdou Aziz Baye Ndiaye ñoom ñëpp. yaayam ñoom Khoudia Diop. laa ko sëriñ Bakhsa di génn àdduna tànn ko mag jëm. bàyyi ñu benn yoon ba bëre ñu ngi bàyyi seen i ñëpp kon maa ngi gërëm Sénégal gërëm Mbaye Diop sama taal bi kon ma koy faral ñoom ànd ak ay làmb ko lay Mm-hmm. samay nit la ñoo ah mm-hmm. a kawe moog euh, ñëw yooyu am na ci ñëw koo xam ne dafa marqué sénégalais yi muy ñëw Bombardier ji mm-hmm. nga xam ne quelques jours a dox seen diggante yow ak moom combat mu sol dàllam ñëw ba sa kër loolu di sénégalais yu bare bare rafetlu ko yow mi mu fekk si bi mu ñëwee sa kër nga gis ko ban yëg-yëg nga am non Bombardier doomu aadama la. Mhm. kon man nga ko nekkee kon keneen nga ko nekkee. àdduna bu bu jafe-jafe amee dañuy jël lépp teg fële. Mhm. bu naqar amee dañuy jël lépp teg fële. bu kontaan amee dañuy jël lépp teg fële. Mhm. parce a bokk di liggéey yéen ay mayante xaalis yéen ay demalante ko kon donc loolu rafet na ñu jëlee tey fële parce que mook àdduna yoon di dund ak dee la nga gis ne sa mbokk jullit yéen a bokk di liggéey yéenay mayante xaalis yéenay demalante waa may teraanga moom moo tax nga am ko ginnaaw yàlla ngeen koy sëñ Tuubaa kon donc loolu rafet la lu ma rafet la lu sedd sama lu sedd sama xol ma am ci yëg yëg nekk ma ci moom loolu bettu ma ci gërëm Tyson aussi tamit. Tyson waaw Tyson nga xam ne suñu mag la amul lu may yëgal lu may xewle te du ñëw fekkee. mais tamit euh, yaakaar naa ne nekk nii ah euh, góor gi jóge na fi. héritage am moo fi des ndonoom ban taxawaay la Balla war a am ngir héritage du ko les donte am nga mag mais Sénégal yëpp yow la ñu xam yaag Sa Thiès. waaw mais xam nga sant yàlla mënut a weesu. tey nga nekk ak sa papa nekkee bu rafet mu la gisee wala fu mu yëgee loo xamante waroo ko def mooy la lii bu ko def mu la gisee mu la lu baax la lii baax na li mu la doon noon nag ci gay jaar sa mbaam kenn yóbbu ko ci réew fullaam faydaam di nit mooy taxaw naan la lii sa papa lii ndax dignitéem ak personnalité ak ngor gi mu doon lu ko yàlla def kon jàmbaar jooju moo nekk ci man fulla ak fayda laa xam da ngay moom mooy la Omar man kenn musuma yóbbu police ma ñëw na ci dëkk bi kenn musu yóbbu police kenn musu ci yenn yi kon loolu moom donc maa ngi ñaan yàlla yàlla oyofal lépp oyofal lépp ndax am naa fi ay mag am naa fi ay rakk Malal suñu mag la mooy suma taaw papa mais wax dëgg yàlla ku ma jox cër la moom noonu man ba tax na daal wax dëgg yàlla yal na yàlla oyofal lépp loolu rek lay yal na yàlla oyofal lépp ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa ak mbooloo mu jullit Baye Ndiaye Aziz Ndiaye ba ci liiru jaan waaw ñooñu faw mu tudd leen parce que ñooñu moom sa diggante ak Aziz kenn wax. Mm-hmm. waaye Lirou Diane itam sa diggante moom defe naa ne Sénégal yëpp sax sago ci yow ñooñu. bu ñu am mooy li ma yàgg wax. bëgg bu naturel la. Mm-hmm. bëgg bu sincère la. may nekk xale ba léegi Lirou moom la. du tey. ah may nekk xale man mu nekk moom jëm. Mm-hmm. mu may woon naa ma defal loolu yàgg na du tey mënul ma sama bopp dara ay ñoom doublage ñoom ñëpp ay ñoom alamda ñoom Abdou Diouf mais nga loolu nekkul loo xamante ne wax dëgg yàlla liiru mention ci man bëgg na ma bëgg boo xamante ne mënu ma si gi xool kooku dama koy bàyyi yàlla boobu ba léegi mu ngi fii saa yu ma xëyee maa ngi koy gis Aziz noonu gis nga ko Baye Ndiaye noonu saa yu ma xëyee maa leen gis ñu mooy dalal ñu may dalal parce que man sama papa nekkoon na nit koo xamante ne ci man euh, bëgg na bëgg boo xam ne sax bëggul ma xam ko maanaam bëgg bu mu yàlla def ci moom bëggul ma xam ko nee na doom boo ko bëggee boo ko ñamantale bu ko xamee li war a def du man teg ci la neex lu la nax. wallaay dëgg daan teg ci yoon bu jub. tey tey boo gisee tey ginnaaw yàlla lu bëri tey ma tel ko gérer sama àdduna. mooy sama papa laa ragaloon musuma ko ñeme ndax fullaam ak fayda te ragal googu ma ragal mooy. damay bëgg tegu ci yoon loolu moo tax ñëw moo def loo xamante ne bu ko yëgee wala bu ko gisee eh, day am lu ko metti te man tamit du ma am lu ma neex dama ko du ma def man daal papa ju baax la papa ju jullite la papa ju am ful la papa ju am fay la liggéey carrière yi ci Sénégal nekk champion d'Afrique ñaata yoon nekk roi des arènes lépp kenn mënu koo lim kenn mënu koo lim kon jàmbaar daal. macha allah jàmbaar la. sa mag na la sànq ci sama micro muy malal. Mm-hmm. nee na mooy taaw bu góor. Mm-hmm. waaye jox nga ko ci. ko xool dana mm-hmm. ne tabaski bu jot am na lu mu jënd xar mais da ko daan teel xaalisu xar maanaam moom itam seere na sax lu doy war ci yow ci rafetal ak cër looy wax si malal moom nga xam ne mooy taw malal naka jëkk mooy suñu kilifa wax sa baab Moussa na daan la man sama wàllu wéy li ma leen di wax mooy ngeen tegu ci yoon tegu ci dëgg malal mooy seen mag topp leen ci moom lu mu leen dëggal ngeen def lu mu leen tëral ngeen bàyyi kon papa sama papa organisé woon na boppam ci bari bëri bëri ci yar nit organiser nit ci wax nit defal nii ak nag nii vraiment loolu am nañu papa ju baax ñàkk nañu papa ju baax. Mm-hmm. mais delloo nañ lépp suñu borom. waaw delloo nañ lépp suñu borom. Mm-hmm. yàlla mi nga xamante ne moo am moo mën. ñu ñaan yàlla na ko yërëm te ko àjjana yi gën a kawe. Balla mag ñi fi may jeexale mooy mag ñi leen uufoon ci làmb de boo xoolee presque ñu ci bëri wàññeeku nañ mm-hmm. père Aline Sey bu Waalo per Daouda Fall père Balla Gaye Ndour bu xam ne moo la formé ñoom per Mor Daga Sarr ñoom ñëpp di waa géej waay tey sa papa héritage bi yéen a ko dese jeunes a en commençant par yow Lac de guy gi ak ñoom Abdou Diouf ak ñeneen ñeneen taxawaay bi ban taxawaay la war a actuellement. waaw loolu njàngan la rek njàngan la lu nga xamante ne wax dëgg yàlla kenn ku nekk mën nga cee jël exemple sa tey ci benn at ñëpp génn àdduna nekk defoon ci àdduna nekk ay champion nekk nit ñu baax nekk nit ñu jullite ñun ñëpp bu ñu génnee àdduna rek loolu yàlla suñu borom mu ngi wane njàngat boo ma ne kenn ku nekk nag war nga koo xoolaat ci sa bopp ñu yàlla rek yàlla yërëm leen te xaare àjjana ñu ñi fi nekk doxal maanaam dëggal jubal leer rek ñu doxalee ko noonu bu ko defee incha allahu lépp lu ñu bëgg dinañ ko am si kàttanu yàlla suñu waxam lay wax presse bi ak ni ñu leen di sant di leen gërëm ndax àdduna moom euh, Double Less ndax eh, yàlla moo dogal yàgg nañu tey di waxtaan ak ay presse di gisante ak ay presse ba ni mu feebaree sax sama papa boo jëmee ci këram waxtaan ak moom doo koy wax mujj bi maanaam kenn bu fa kenn dem ndax yërmandeem te xam na dayoo nit ñi nga xamante ne moom lay liggéey di ci am wéccet kon presse bi yëpp maa ngi leen sant di leen gërëm liggéey bi rafet na eh, kenn amul seen fay yàlla même fay yàlla na yàlla fay. donc événement bi bàyyiwoo leen dara couvrir ngeen ko ci lépp lépp lépp yéen ñi fi teew ak ñi fi teewul ñëpp maa ngi leen sant di leen gërëm di sant mbëru Sénégal yëpp nag ancien gloire yeeg hmm, mbëri nekk en activité mbëri ndaw yi mbëri mag yi bàyyi ma ci kenn mu ne meen naa jum maa ngi jaale Sénégal yëpp yëpp yëpp yëpp ndax Sénégal moo ñàkk waaw kon donc vraiment kontaan naa yàlla mi fay daal yàlla nañu yàlla fay ci barkeem bi ñaan yàlla sama na ko yàlla yërëm taxaaru ko àjjana jërëjëf waaw merci beaucoup